fay naa la buur. rek rek Upa Jam yi kañ lay dakk <laughs> waaw ñuy sant yàlla bu baax a baax di julli seenant bi di ñaanal sama papa ak sama tante yàlla xaaral leen àjjanay si di ñaanal sama yaay yàlla na ko fi yàlla baay ba si kanam kanam di sant waaj Sénégal aw ma seen fay surtout waa Caaroy Géej waaw. rawatina séeréer si. waaw surtout waa séeréer yi man sama yaay séeréer la sama maam ki jur sama papa séeréer la kon ñun si séeréer yi nañ bokk te ginnaaw yàlla lu ma am séeréer la. ñu sama entourage yëpp séeréer la kon ñu may ñaanal yëpp séeréer nañ ñu gis rek rek ragalul léegi dara guy gi ñëw na ne du maak moom amateur yi ne combat bi leen te daqal leen te lu mun ta ñàkk mooy diggante rek rek ak Sa waa <laughs> waaw ñu fi pour làmb rek làmb kum ñu boole rek ñu bëre moom waa ñun fi ñu ngi fi pour làmb waaw ñu ngi fi pour làmb lu ñu la ku ñu làmb boole rek ñu bëre ak yow waaw gëm-gëm bi se gars xale nañ dañuy liggéey làmb mooy sunu métier te doole doole xaaruñu boo doonee xale da ngay liggéey pour maanaam boo bàyyee làmb am loo yor loo xam ne yàlla suñu borom bula la boo bàyyee lam am loo jàpp kon looloo tax ñun mbër nañ dañuy lam làmb mooy sunu métier du benn yoon du ñaari yoon bu ma bëree ak Balla Gaye junior dama xëy dem bëre ji ma bëree ak Brise sa sam dimanche bi damaa xëy bëre ji ba si kon ñun làmb ak jorron tamit kon làmb mooy suñu métier. mais est ce que guy gi est ce que guy gi am na droit daw Reug Reug wala boog astafurlaa sax du daw waaye xeeb Reug Reug wala wala wala taxul. moom instant bii nee na pare na pour bëre ak man maa ngi xaar promoteur mu ñëw ndax dégg na nas li mu wax ndax nas maanaam dafa bëggal guy gi dara moo tax ndax tey jii foo dugal 40 millions wala 50 millions googu kër lu muy def kon jéem na kon nas xam na bu baax moom li mu bëggal guy gi ñun tamit pare nañ pour guy gi. bu ñu làmb boole rek ñu bëri amul benn problème. waaw guy geeg saa bu la gënal ndax sa combat ak saa la amateur yi gën a bëgg loolu combat jëne la rek rek. amateur yi lu ñu bëgg rek man maa leen ko gën a bëgg mais nit ki bu lay daw. ku lay daw rek rek saa day daw fekkee maanaam ku lay daw du question maanaam saa kees damay daw sama lu ma lay moo tax mbër gis nga mbër dafa doon loo xam ne wax bu xasee ba génn bal la mbër boo bëriwul ak moom neel bëriwuma ak moom champion la nangam ak nangam mais jarul xalab

day bañ mbëri nañu xool waxi ni